Euh, yàlla ñu yàlla may li ñuy wax jub yàlla ñu yàlla may li ñuy wax jub yàlla ñu yàlla may li ñuy wax jub barke alxuraan ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, madame Touré léeg defee nii am na koo xam ne sa loxo bi nga teg sa kanam da nga ko mënut a baax. aw nag da ngaa digg. Ah, aw ka xam fi nekk à bëgg aw nag à bëgg a bokk nag. Ah, ah, léegi da ngeen may dundal. loolu la day am ñuy yëfi bopp. Mhm. ka nekk am nga say yëf. te muy dëgg. te boo ko dindee dootul yow wax. yii authenticité. comme ñaari traits la papa ñaari traits yi. après dinañ si ñëw. waaw président Macky Sall en permanente euh, campagne électorale. pourquoi. j'ai vu la super excellente contribution de Birahim Touré ce matin. Mhm. ci bloc matin bi. tout à fait. Mhm. j'ai super adoré. dama ma dama dama fex dama daw si ci ci ci kii bi ne ko xoolal xoolal. nii vision. c'est peut-être respectable. Mm. mais mm. la pertinence de de parce que le président de la République. dafay juum toujours ci ci maanaam dafay c'est extraordinaire comme notre président qu'on aime bien et beaucoup. il y a rien de nouveau pas ça. a rien de mais le problème c'est que c'est, c'est-à-dire la même erreur. Mm-hmm. perpétuée. Mm-hmm. loolu moo yéeme loolu moo après on se dit mais xanaa amul président bi amul ñu nekk ak moom di waxtaan ak moom xanaa amul ah, y a pas de y a un département stratégique présidence ay boroom xam-xam rek a fa ne. Mm-hmm. ñi ko wër de grands fonctionnaires sans compter des ay éminences yu nekk autour de lui bon après nag quelqu'un me dira est-ce que mu ngi leen di déglu c'est ça c'est la question est-ce que nekkul di def moom li mu bëgg def ñu bëri ci nguur gi loolu lañu lay wax boo leen invité encore que des ministres conseillers qui peuvent rester des mois sans le ah. voir mm -hmm. qui peuvent même pas dajeeg moom wala seen ko c'est un problème aussi maintenant qu'est-ce qu'il a dit à en France li mu wax ñëpp dégg nañ ko ça fait un peu la presse aujourd'hui et quand le président parle dans le sens va-t-en guerre oui après ma gis opposition bi j'ai vu la missive de Bougane euh, qui la qui lui adresse euh, une dose d'humilité dans le sens où il doit s'y mettre euh, par rapport à la croyance par rapport par rapport au dogme dogme religieux. mooy dogme moo la moo la gëm-gëm. moo la foi yaqinu nit ñi yaqin man imaan bi nga war a àndal pour gëm ne que yow amoo doole borom bi moo am doole te moo kaa joxe. ko neex mooy wax président naan léegi am naa plein pouvoir kenn mënuma intimider kenn mënuma xoxatal loolu dafa diis loolu yëpp te borom bi buggul kuy bàkku bàkku la loolu bàkku la de waaw borom bi buggul loolu ku ko ñi ko def ñëpp daanu mais mu waxee ko ci sens ko ni comme opposition bi ni mu ñëwee moom tam di fëgg dënnam ni mën na hmm. te day def moom itam mën na day def man la ma ci jaaxal mooy ñaari at moo moom du opposition non kilifa la xam nga kilifa tu dois te mettre au de la mêlée mais au-delà de du chef de la nation bi mu doon hmm. il est chef de parti man foofu laay waxee. côté politique interprétation rek la new ma loolu moo am. interprétation mhm. dama ne est que opposition ni muy taxawee ni man lii laay def maa man fëgg sama dënn. Mhm. moom itam da leen bëgg a wax nii am na tamit moom itam euh, fit bi ak mën-mën bi wax leen tamit fëgg dënnam. très bien Passane pourquoi alors mu defi ko tugal te jongante gi fii la. Euh, waaw parce que parce que parce que il était parti pour le forum sur la paix boobu nga xam ni Emmanuel Macron moo koy organisé euh, ca France depuis 2018 depuis bi mu accès euh, moom président bi dem par rapport malheureusement malheureusement ou heureusement je sais pas à chaque fois qu'il y va xam nga rencontre bi mu def démb ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal parti c'est vrai il a le droit de communiquer avec eux et même de le diffuser partout mais ak moo neexoon mu nekk waxtaanu biir ñu waxtaan seen biir. Mhm. du lu war a génn stratégiquement ñu waxtaan seen biir mu leen xam ngeen ni man am naa doole seen biir lay yem. amul problème face à mën nañ ko gérer. mais ah. day nappe ci la mu dem ba réew nasaraan si di napp ay eh, nawleem yu muy jongantel fii. sauf que foofu aussi ñun suñu kilifa yi dañuy wax trop ci émotion. Hmm. suñu on a nos autorités ont tendance à parler ci ci émotion. Hmm. bu ñu nekkee ci ci ci rencontre nii dangay gis kilifa yi bu ñu kilifa yi boo duggee seen bureau sax dañuy bàkku. dañuy aju ci seen position doxal ñuy toogee da da lay wan ne la mën a mm-hmm. souvent ça pose problème humilité zéro kilifa yu bëri fii ci dëkk bi dañ ma baal ñu ci bëri ni ni man rek wàccuñu seen bopp waaw dañ ko diisal te souvent daf leen di loolu daf leen di ñàkk loolu lu bëree bëri léegi-léeg nga xeeb ka nga xam ni mu ngi ci suuf romb nga romb ko nuyu ko mm-hmm. bakken mm-hmm. muy borom barke fekk moo téye kër gi te muy dëgg fekk moo affaire bi bu xolam tàngee foofu rek musiba am. moo tax kilifa yi dañu war di. et maintenant quand il s'agit du président de la République ce que Birahim a dit ce matin magnanimement mooy que moo dafa war a nekk benn niveau boo xam ni. kenn du ko dégg si yooyu. Mm-hmm. dafay nekk fu kawe parce que ñëpp foo lañ ko séentu. Mm-hmm. mais on a l'impression aujourd'hui le président de la République mais tient ipso facto à ce que on lui dise ce qu'on lui dise Benno Bokk Yaakaar gagné nañu localité yëpp. ce que ce n'est pas mais est-ce que ce n'est pas boo jiitoo ci kanam yow mii nekk suñu charge de production boo sañoon suba teel di nekk ci kanamu lépp ñëpp. c'est différent. mais quelque part c'est son propre projet c'est son parti politique quelque part il est le père de de de de de Benno Bokk Yaakaar et de l'APR il a envie de voir l'APR et le Benno Bokk Yaakaar devant tout. mais mais pourquoi pourquoi ñun duñu dégg mukk suñu kilifa suñu président. lu tax du ñu offusqué wu ci discours bu mu tenir wala ci stratégie maanaam on a l'impression que depuis 2012 on a pas un chef d'État on a un chef de parti c'est une impression mm-hmm. c'est-à-dire quelqu'un qui en a toujours contre ñun mm-hmm. impression la mun naa juuma mais c'est une impression qui est là mooy que a toujours l'impression le président est fâché contre quelqu'un mm-hmm. il a avoué à quelqu'un mais est-ce que c'est pas aussi un problème existentiel dañu mm. naan Macky euh, gëmul gëmul ne moom mooy président ba léegi et qu'il a besoin et qu'il a besoin de le de le de le clamer à chaque fois oui de s'affirmer de le clamer à chaque fois. parce que ça existe aussi il y a des gens qui ont ces oui mais c'est c'est ce qui étonne les gens. mais une chose aussi am na. Mm. mooy la. léeg-léeg cursus day déterminer personnalité. c'est clair cursus waxuma jàng de cursus laa wax. mooy mooy jaar jaar. Mm-hmm. mooy mooy nga jógi fenn ñëw. loolu déterminer sa personne. c'est-à-dire mais il a été avec le meilleur des formateurs Abdoulaye Wade c'est le père justement de tout politique aujourd'hui jege jege pële nag taxut doon footballeur de. Mm. <laughs> dëkk ak Messi. Mm. taxul nga nekk footballeur de. Mm. nekk ak Neymar chaque jour maag Neymar ñooy naandoo ataaya <laughs> taxul nga doon diis de. Hmm? daa si aw wala du si ne. léegi nag le président a lui ses ses talents à lui le président Sall il a ses talents il a ses qualités il a sa personnalité il a sa façon de faire mais dama jàpp ne ñi nga xam ne ñooy nekk ak moom ay waay nañuy nañu ko xuloo leen ak moom. raak leen xeex leen ak moom ngeen dimbali que il faut pas laisser nit bi parce que nii ñii ñuy ñuy demee nii qu'est-ce qui va se passer si le président di am na doole am na kii mais utiliser wu ma ko e si jamais il il veut l'utiliser parce que ki la naan utiliser wu ma ko mën na ko utiliser ah. xam na ni mën na ko utiliser. xam na ko donc mun na ko utiliser. mais est-ce que du lay dànkaafu tamit di leen dànkaafu di leen wan parce que bu leen nee am na doole mais utiliser wu ma ko def na la part des choses. xam na ni moom mooy. li nga li nga wax xalaat la loolu mën na ni xalaat mën naa nekk xalaat mais wax bi dafa maladroit. Mm-hmm. ba pare dafa oui peut-être un manque de finesse c'est que peut-être que aussi président il a du mal à s'exprimer keroog wax naa ko fii euh, suñu maman euh, Mbuub bi mu ñëwee dañu leen wax xëy na ñoom waa APR euh, il faut que ñu delluwaat ci biir askan gi xoolaat ndaw ñi nan la ñuy waxee ak ñoom parce que peut-être il y a eu une option obsolète qu'ils ont et que la force. ou rapport de force doxatul mais peut-être que derrière il euh, ay intentions yu baax ñoo ci am et que président Macky Sall euh, je crois pas qu'il soit là pour tenir euh, mais mais mais, mais mais madame am dafa loo xam ni tey sénégalais yi une bonne partie wala une grande majorité. Mhm. loolu bu ko nguur bi nangoo loolu moo am. Mhm. su ko nangu loolu moo am. une grande partie des sénégalais dañu mere nguuru Sénégal léegi la question mooy lan la nguur bi war a def pour que mer bi deñ pour que nit ñi. nangu leen sax bàyyi xel. très bien ñun lu ñoo toog fii di wax nii. nous on est correct à l'antenne on essaie en tout cas d'être correct. Mmh, ouais. mais sortez dans la rue. tendez le micro di nga dagg lu bare. parce que la la la lañu cay teg moo maanaam nañu ko la la sénégalais di wax ci nguur gi. te ñoom uh-huh. ils ont les services de renseignement. montage kët ngay def. kët ngay def kët ngay def montage bas dagg parce que parce que daggal bi mooy fort. donc loolu ci nañ ñu baal kàddu bi gars yi dañu dañu toll Sénégal yi dañoo mer mer boo xam ni. yàlla na si yàlla wis ndox bu sedd ak jàmm ak salaam mais faut que président bi ak équipe am décision rétropédale am na. taxaw taxaw tuuti rek dellu gannaaw reculer pour mieux sauter loolu tubaab di wax waaw waxtaan ak nii waxee naan am naa dooleeg yooyu. Hmm. mais baa xam ngeen ni APR ak ñi ñu àndal ñoom ñëpp noonu la ñuy waxee. mais nag ci bàkk tuus na la ñuy toll dañ koy peut-être classifié foofu mais Baye San li nga wax encore une fois bu dee président dafa nekk en campagne électorale permanente si toutefois. ce n'est peut-être pas la bonne manière de s'adresser aux Sénégalais. Regarde ton administration. Tout le monde est, est, est candidat. Mais administration bi yëpp koo ci élection eh, ku ci ne directeur de DG mhm, de, mhm. de tout le monde est dans parce que ñëpp le président Sall politique loo très bien Aïcha loolu ñëpp nee nañ jaaduwut li ci kanam raw li gët euh, fu mu fu wannanti mu jëkki gëttam dinañ ko xam incha allah yàggatul ce sera en janvier benn baal ma rek acteur bi ma leen jox Aïcha benn maa ngi gis Bamba kase muy wax ci journaliste yi Cheikh Ahmad Bamba maa bu baax c'est vrai il a raison sur le principe quand même il a raison maintenant benn bémol rek Cheikh Ahmad Bamba si tu le permets mooy le fait que waa ji dafa dem je prends le cas de Ahmed Aïdara dafa dem politique mook ñeneen ñi euh, Racine Talla ak ña ci des mais man mën naa dem politique mais il a j'ai mon métier parce que Cheikh fi mu waxee mooy